jéema nafar ak mbokk yi lenn ci buntu tahara buntu laab ndax lu am solo la loo xam ne dafa dëkk ak julit bi waxtu wu mu di ko aja lenn ci jaamu yàllaam gudul yi ci ëpp solo yi la bokk ci Buntu bu mel nak nag waxtu nak kon war nañ ci delu diko nafar ñi xamuton di ci xamee ñi fatte won di ci fàttalikoo ñi don jaawale yépp mëna delu ci buntu bu am solo la bo xam dongé donge daara yépp xam nañ né danaka bu ñuy jang bokk na ci li ñi tambulé am jang ndax gi mu ak julli te julli di ponk bi gën a rëy ci ponk lislaam yi ginnaaw bu ci nit bu nit ki duggee ci lislaam xëy na loolu moo tax mu am yitte am solo sim am xëy na moo tax mbokk yi tànn ko boole ko ci bind ñu war a nafar ci biir weer wi nga xam ne weeru diine la weeru jàngale la lu baax lu nit di def jamono yépp la baax waaye rawatina ci weer wi kon bu ñuy jàngalee ci waxtu yépp ak jamono yépp bu ramadaan dikkee mën nañoo wax ne ca la ñu gën a soxla njàng kon li ñuy waxtaan ci laab tey insha allahu taala danañ tàmbali ci leeral luy laab yan xeeti laab moo am ak lu ñuy jëfandikoo ngir laab ñu jàpp nag ne xëy na am na lu ñu baaxoo woon téere yi jàngale fiq di ko waxe ñu dañuy gis ne di bàyyi xel fi ñu nekk ak fi ñu toll dana ci di baax léeg-léeg ba misaal yi ñuy joxe ñu di ko delloo foofu mooy ëpp njariñ di tënku rek ci lu ne woon ci ay téere yoo xam ne xëy na jamono yañ koy taalif booba loola lu ñu doon dund la loolu incha allah xëy nañ seetlu ko ci biir waaye loolu rek la ci jublu ci tàmbali bi li ñuy leeral nag laab moom baat la boo xam ne ci arab tahaara set lay teg set ci sharia nag am na ñaari maana wala boog am na ñaari déggin tahaara dana nekk tahaaratu azahir di nekk tahaaratul baatin kon dana aju ci ñaari mbir yu bokkul ak laab dana aju ci biir di aju ci bitti kon am na tahaaratul baatin am na tahaaratu zahir gi ñuy gën a soxal danañ ci ñëw ci kanam mooy taxaaratu zahir googu am na ci biiram boo xam ne moo aju ci fiq waaye du tee baax na ñu leeral du ci desit ba nit ñi xam mooy laabub biir buñ ko waxee ci xol lay dellu ak cëri doomu aadama doomu aadama ji laabal xolam ci bokkaale laabal ay cëram ci def bàkkaar loolu mooy laabub biir du looy làmb di ko daj du looy xool di ko gis waaye tilim gi ne ci biir nit ki la ku bokkaale yàlla ku tilim gi ku bokkaale yàlla ku taq nga ku salte nga féeg raxasoo bokkaale googu duñ la mën a jàppe ku set kon bokkaale tilim la taq-taq la bu ñu war a raxas sobee la suñu war a si fóot bàkkaarit noonu dalil bi mooy danañ jàng ci alxuraan suñu borom di wax ne innamal mushrikuuna najas way bokkaale yàlla yi sobe lañ sobe googu du luy taq seen yaram nga xam ne boo ci laaloon kenn ñu ne la demal bi wala demal raxasu bi taq nga sobe wala mënoo bokk ñoom lekk wala loolu taq-taq boobu du luy wàlle du luy taq ndax du lu ñu gis waaye ñàkk gëm yàlla gëm leneen loo wër te gëm mooy taq-taq kon ak laab dana aju ci xolub nit moo tax it borom bi di wax ne wa siyaabaka fa tahir ñiy firee ne siyaab foofu xol lay firi mooy laabalal sa xol ci lan ci jële ci lépp luy wedd yàlla wala bokkale yàlla saa bu wedd yàlla dëkkee ci xol wala bokkaale booba xol dafa tilim dafa sobewu dafa tax xol bu ñu war a laabal ay cërit day tax sobe mooy def bàkkaar mo waral ñu digg yonent bi ci hadith allahumma tahirna min adh-dhunub tahirni min adh-dhunub kama ath-thawb bil bilma aw kama qala alayhi salatu wassalam yalla nak mas laabal ci bàkkaar ni ki ñuy laabale mbubb bu taxé bu tilimé ni ngi koy ak ndox bam set yalla nak ma do ci kon bàkkaari tilim la bu taxé nit ki war nañ ko fóot war nañ ko raxas li alquran di waxeet innama yuridu llahu an yudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira laabal googu it ci dellu ci laabug baatin lay dellu yàlla daal bëgg ngeen set mucc ci bokkaale mucc ci lépp lu xeetoog bokkaale yàlla abu hurayra la yaakaar naa mas naa daja yonent bi ci mbedd bi moytu daal di làqutu ba dem dafa ne yonent bi gisu ko dem daal di ba mu yàgg mu delsi yonent bi alayhi salaam ne ko waaw foo foo ne woon mu ne ko damaa sobewu woon moo tax bi ma dajee yow ma daal yonent bi alayhi salaam ne ko subhanallah inna al mumina la yanjus ab jullit du sobewu kon sobewu googu muy wax sobek maan baatin gi la boo xasee gëm yàlla sa xol set dafa bàkkaar kon taqatu xëy na boo aajowoo sangu wala nga aajowoo jàpp loolu doonut lu war a tax ngay daw nit ñi wala nit ñi di la daw kon ñu dégg ci loolu ne laabu biir mooy gëm yàlla gu wóor ak wéetal yàlla su nekk xol xol booba laab na nit bu muccee ci bàkkaar xolam laab na laab googu nag tuuba koy def tuub mooy setal nit ci bàkkaari biir mooy setal nit ci taq-taqi baaxi kon tuub bu sell saabu la day fóot ay tilim tilim waaye tilim tilim yi muy fóot duñ mën a teg loxo ba bëdd ci tay loolu mooy genn laab bi nga xam ne baax na ñu leeral ne am na soxla nañ ko it na kon ci biir danañ gis saxit ne yenn xeetu jaamu yàlla yi dana sabab moom itam di setal ñëw na ci xadis yonent bi salaam di wax ne ku jàpp njàpp mu sell mu mat cër boo raxas bàkkaare ya ca taxoon day ànd ndox mu wadd kon ndekki booy jàpp yaa ngi setal tilim tilim ju kaw ju feeñ ci kaw waaye ci biir it yaa ngi raxasaale tilim tilim biir muy bàkkaar yi kon ñaari njëriñeen ci fu lu mel noonu ñu war ko bàyyi xel kon ay cër day tilim mooy saa yu bàkkaar nekkee ci cër yi cër yu jonjoo bàkkaar cër yu tilim la su ci borom bëggee mucc nay tuub dellu ci boromam te sellal ab xol day tilim su ci boroom bëggee mucc na mucc ci bokkaale نموت في غير يلا أو يدمن نون لا بيتلس مه لا بوك ظاهر لا بوك ظاهر نيت خاجة أمن طهارة عن الأحداث أمن طهارة عن الأحباب أمن طهارة عن الفضلة بوجبوب لا يجيك نحن نعرف بين فرد كلالة كلا بوك moy doomu adama ji am na ci kawam ay tak tak yu war dindi doomu adama nit am na yu ne ci yaramam yo xam ne saa yu uppe da wara tagom mo sey we su gude ba upp dañ ko wara lew ab julit du yar ay wey diko guddal muy wey sa yu xasse bari tak tak yu ne ci bir sobe la tak tak la yo xamne man na la galan ko sax boy la kon ay we tilim la diñu war tàggoo yenn kawar yi ci yenn barab yi tilim la diñu war a nit gor bu tollo ci duggu neegu gor loolu ñi dind ci mom sobel dañu war tag wal ne ko tak tak yoy tak di am xet loolu tiir yu ñu war a dindi la moo tax yonent bi sallallahu santaane soj digal jullit ñi ñu fonk soj yooyu mooy tahaara ci fadalaat yaramit bu yàggee wala mu dox ci naaj day ñaq ñaq woowu de indi xet moo tax ñu santaane sang sangu goo xam ne du dindi sobe waaye dindi tilim ak xet la loolu ba tey ci laabu ba zahir la bokk tilim tilim yoo xam ne boo xoolee mën ko gis ab jullit dañ koy sant mu laaj yooyu kon jullit day fonk lay wecc saa yu jote waaye du yare kawar yi ñu war a wat ak jullit day fonk di ko wat saa yu ko jote mbooleem mel noonu yëpp mu ko fonk mooy tahaara ci ay fadala ñaari ci nag moom lañu jàng ci téere fiq yi mooy tahaaratul xadaf ak tahaaratul xabaf benn bi jàpp koy def wala sangu wala tim ku sang war wala japp war la so len meunut ñun la timal koku lañ wax ne dafa yor hadas di sant mu japp am yu koy waral xeyna ci jotaay bi wala ci yenen danañ ci ñew benen bi moy liñ wax xabas moy sobe su tak nit ci yaramam mbaa mu taq ci ay yéreem mbaa mu taq ci barab bi mu toog sobe yooyu dañ ko war a dindi ñetti façon dindi sobe nag mu am sobe su taq ci baram benn ñu dindi ko ci raxas wala ñu dindi ko ci fomp wala ñu dindi ko ci wis ñett yépp danañ ci dindee sobe su taq ci yaramu nit mbubb bu taqee sobe dañ ko war a fóot ak ndox mu set danañ ci ñëw bam leer na le ne set na xabas nag jëmmi sobe si mën naa dem ba set te teewut mbu mi taq sobe lu ma tax xam la nit dana sol mbubb mu taq sobe mu dem fóot ko ba set ba noppi mbu mi wéy mu taq sobe mënta julli ndax sobe si setu ndax bu xasee taq sobe soosu ndox mu ndoxum neen moom lañ koy fóote bu sa mbubb taqoon sobe wala barab taq sobe nga wut ndox mu saf saabu wala ndox mu leneen mën nga koo fóot mu set waaye na la leer ne jëmmi sobe si moom dañagul atte bi taxoon ñu ne la sa mbubb mi daa taq sobe dañagul moo tax foofu dana mat di xam lool kuy fóot mbubb mu takk sobe ñaari anam am na bi gën a jàppandi mooy nga wut ndox ak saabu fóot ko ba mu set nga xam ne luy taq nekkutut nga door a wut nag ndox ndoxum neen fóot ko ca fóot goo xam ne da koy jubloo laabal ndax boo njëkkee laabal gi rek dañuy wax ne booy fóot lu taq sobe danga war di ko fóot di tuur di fóot di tuur ba póotit ma bu mu xeeñ sobe bu mu safat sobe fii ak póotit maa ngi xeeñ sobe muy saf sobe li ngay fóot laa bëgg kon yoon wi gën a gàtt gën a jàppandi li taxaw sa la wutal ndox ak saabu fóot ba jëmu ja dañ mu des xokkumu bi xokkumu bi nag boo ko dugalee ci ndox benn yoon génne mu set waaye saa boo yemee ci ndoxum saabu kese wala ndox moo xam ne du ndoxum neen boo ci fóotee mbu mu taqu sobe setago mbu mu setago xabas mu kon looloo koy dindi xabasit làmboo na dem wanag doomu aadama su demee ci wanag faj aayo doomu aadama ba noppi sobe soosu dañ ko war a raxas mbaa ñu fomp ko foofu it jar na bàyyi xel ndox mi ñu yóbbu ci wanag ngir di ko defaroo ndox mu mat bàyyi xel la yi ñuy wax ci ndox bu ci benn manqué mënt setal yooyu ñu bari duñ ko bàyyi xel dañuy wut lu mel ne ndaa wala dara ndab lu mën a def ndox rek teg ci buntu wana wi duñ bàyyi xel gone yaa ngi cee def lu niin ña ngi cee sotti saabu ña ngi cee def yu ne bu ñu waxee da wax rek ne amul solo ci wana bi rek laa jëm nañu bàyyi xel ne ndoxum naan léeg-léeg moo gën a yomb ndoxum dem wana ndox mën naa niin mën naa am xet ba noppi mën koo naan waaye yooyu bu ci benn soppi ndox moomu mën dem wana baax na jullit ñi ko bàyyi xel kuy dem wan na nga xam ne ndox mi nga yóbbu na la wóor ne mën naa raxas sobe singi nga bëgg raxas boo ci demee kon ñaari xeeti laab yoy am wala bokk taharatu zahir ñetti mbir wila la ëmb hadas, ci xadas te ci jàpp lañ ko defee wala sangu wala la wala tib ak tahaara ci xabas te mooy raxas sobe wala fomp ko wala wis ko wis dana am ci mbubb mo xam da am lu ca taq daa am lu ngay natable wala da nga jaar fu sobe ne di nattable sobe si laal na la wala laalu la ku jaar ci wetu sobe waaye bi nga jàll yëg nga ne daal daa mel ni am na ci sobe si loolu dal waaye boo xoolee doo gis jaxit waaye sa xel dalu ci kooku la ñuy wax ne na wut ndox wis ko bu ko wisee laab na kon dis na laabal xabas ci wis niñ koy laabale ci fomp lu mel ne jaas yi ak yenn ay dàll ak yu mel noonu bu taqee bay am na yoo xam ne raxas baaxu ca yoon dalay may nañ ko fomp ba mu set buñ ko fompee ba mu set làmb naka noonu nit ku demoon wanag te amul ndox it mën naa wut coton mën naa wut ay bant wala yeneen jëfandikoo ko ba set su boobaa dañ koy jàppe ko laab donte nag ndox jëfandikoo ndox moo gën donte jëfandikoo ndox moo gën kon ñetti laab yooyu ñoo am laab yooyu yëpp nag bi ci ëpp solo kon ndox lañ koy defee ndox mooy laabal ndox nag boroom xam-xam yi dañ koy tënk ne ñeenti xeeti ndox ñoo am ñeenti xeeti ndox ñoo am ñaar yi ñoo mën a laabal ñaar yi ci des mënuñoo laabal ndox mu njëkk mi mooy ndox mu raxul dara ndox moo xam ne na ko yàlla bindee noonu nga ko fekk na ko yàlla bindee noonu nga ko fekk moo xam ci teen nga ko jële moo xam daa wàcc asamaan bi ab taw moo xam ci dex nga ko fekk wala ci géej ndoxum géej ak xoromam ñoo dëkk du luñ ca def yàlla ko binde noonu ndox moo mën naa jàpp mën naa sangu mën naa pour sobe mën naa dem wan naka noonu ndox mu jële ci teen baa ñu jële ko ci sayaan ak fu ñu ko mën a jële ci ci yi ak yu mel noonu waaye su fekkee ne ndox mi na ko yàlla binde dara soppiku ci boo ko fóonee ndox dong lay xeeñ boo ko mosee ndox dong lay saf boo ko dee xool ndox dongu lay nuru ndox mu mel noonu moo mën a laab moo mën a laabal mooy ndox mi njëkk ñaareelu ndox mi mooy ndox mu soppiku nga xam ne boo ko fóonee mu xeeñ dara boo ko mosee mu saf leneen boo ko xoolee wala boo ko xoolee mu nur la leen ndox moomu la ko soppi la ñuy xool li ko soppi mën naa doon lu laab mën naa bañ a laab bu fekkee li ko soppi lu laab la moom it danañ ci xool ñaari yëf li ko soppi doon lu laab waaye dañuy xool ba xam moom ndox am nañ ak jote wala amuñu jote am na mbir yoo xam ne duñu ndox waaye foo fekk ndox fekk leen fa ñaar du ñu ndox ñoom de waaye foo fekk ndox fekk leen fa ñaare ci misaal suñ jamono ñu toll ubbi robina mu xonq ndax tiwoo bi mu jaar loolu mënoo ko tàggaleeg ndox kon ndox mu xonq ci robinet téewut mën naa jàpp mën naa dem woon ak ndax loolu moo ndox mi ñu lu soppi ndox la waaye moog ndox mi ñu dëkk mënatoo leen tàggale eau de javel bi ñu def ci ndox mi bu fekkee ca forage ba lañ ko ci defee nga xam ne da dañoo da bokk ci liy defar ndox bañ mën ko jariñoo te duñu ci loru su agsee ci yow xeeñ ko mbaa mu saf ko du tee mën naa laab mën naa laabal ndax loolu dañ koy jàppe loo xam ne moom ndox ñoo dëkk fi mu ne mënatoo leen tàggale loolu nag bokkut nga dem duy ndox ci teen ba jël toqi eau de def bu fekkee yow yaa ko ci def moom bu soppee ndox mi mu xeeñ mbaa mu saf leneen moom ndox mënatut laabal ñaar yooyu baax na ñu xam ne li nga xam ne moom mënoo ci dara ñay yor ndox ma ci usine ñu koy liggéey fañ koy défaré bala nga af ci yow fa lañ ci défaré yenen matière yo xam da koy sam di ko ar wala muy rey microbe ci nek yoyu noonu ñok ban ak mbala mbala yi fu xaw yi dan wax naka bi mi jaar bu ankasabal bu naaju tangé ñaan da nga yek ni ndox mi mi ngi saf ankasabal lolu mo ndox mi ñu dëkk moog suuf xox suñu dara wax ñoo loo xam ne ci nga koy denc ndab la am nu mel mu yàgg nga yëg ne mi ngi ciy saf wala mi ngi ciy xeeñ loolu du yàqu ndox mi ndax yooyu ñoom ndox ñoo dëkk mënoo leen tal ndox mënoo ko tànq te dafa ko fen léegi buy ñëw ci teewoo lay jaar yu mel noonu yépp foo xawe dañuy wax ne seen atte moog lu ànd moom bu fekkee lu laab rek bu fekkee lu dañuy jàpp ne ndox mi laab na mënees na ko jariñaw ci yi ma wax jàpp ak fóot lu tax sobe ak dem wana walau bok rahas utak sebayit budak awir. Noh mi ci noh mooy ndox mu jaxasoo nak lu labla, la waaye noh ndox ba xowuñu ànd am na loo xam ne bu ànd ak noh rek dañ leen a boole ndox ak suukar mépp ndox moom mos mu saf suukar mënta jàpp ak suukar ba xowuñu ànd saa buñ àndee nita leen boole ndox ak diw bu niinee bu xeeñee cuuraay ak yu noonu nga xam ne léeg-léeg nit ñi di sàggan ba muy xeeñ ci ndox yi su boobaa nañu xam ne ndox yooyu mënta laab mënta dem wanag mënta jàpp mënta sangu mënta raxas sobe mënta fóot bu mu tax sobe bu jaxasu sobe mënta laabal bu jaxasoog lu laab waaye loola moom ndox andu daw dawuñ ànd baaxoowuñu ànd moomu ndox it mënta laabal صلاة الذي في كل سار وفي سفر